gouverneur diwaanu Ndar jëw nañ ji nga xam ne mooy taxaw ñaari ràkka yi ak chef de service yi nga xam ne dañoo nekk ci diwaan bépp amaloon na tey ci suba benn ndaje ñu di ko wax CRD bi leen ndaje ab jubluwaayam mooy dëppale xalaat yi ak bëgg-bëgg yi jëmale ko rek ci ñeent fukkeel ak ñaari édition bi nga xam ni moom la ñuy màggal ñaari ràkka yi te Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba defoon ko ci kanamu gouverneuru Ndar 1895 ñetti waxtu doyoon sëkk ngir ñu amal bi le am na fukki poñ aw la fukki poñ yu nu waxtaanee. question hygiène question salubrité question euh, énergie eau euh, tel eau ak euh, ak électricité problème mu consommation problème mu douane problème mu sécurité problème mu hygiène problème mu communication prière lépp daal waxtaan waxtaanee na ko file. ci biir boobule daje am na benn tomb boo xam ni waxtaanee nañ ko fa bu baax a baax te it yitteel na ñi nga xam ni ñoom ñoo organisateurs yi mu jëm rek ci dalal gan yi rawatina ganu kilifa yi. kilifa yi ñëw. ndax dafa war mas toujours taxaw ci njiitul kuréel bi góor góorgóorlu ba am li gën ci dalwaayam mu jox leen ko bu dee école yi daanu góor ba li ci war am mu am ka bu dee ay kër noo joxe wala beneen xeetu dalwaay kuréel bi dafa daan ba mu mucc ayib ren nag ñu jël kàddu jëmale ko ci ministère du tourisme te kuréel bi dafay jàppale lool état bi ci politique de promotion touristique ñu bare ba nu xamee ndar ñaar rakk moo tax ñu xam ndar ñaar rek tax at mu nekk plus de 2 millions doon ñëw fi nu bëggoon nag ministre bi mu jàpp ci màggal gi ñu dem bëggoon ministre bu doon téeméer néeg sax mu dimbali ko ci ay chambre ngir fàttali édition 2017 bu ñaari rakka yi duppewuñ ko kenn activité ak jaamu yàlla yi nga xam ne dañ ko fi def yépp dafay jëm rek ci sargal Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ni moom ci kanamu gouverneur koloñaal defoon na fi ñaari rakka yoo xam ni ba léegi dañ koy wéy di ko fàttaliku.